sama gars yi Babacar jaar nañ leen bu wér a wér ah naka foofu yeneen ci jàmm ah. Eh, Babacar jaar nañ la dégg nañ question bu baax ñu ngi lay jaar bu baax ah di nuyu njabootu làmb jëpp ah képp kuy njabootu làmb bokk ci njabootu làmb rek ñu ngi lay nuyu di la jaar ah. Eh, dégg nañ question bu baax waa sant yàlla nag julli Yonent bi di sant suñuy waajur bu baax ah. Eh, waa ni koy dundee mooy comme dab rek xam nga comme dëkku yoon la dëkku loi la xam nga liy digle rek loolu la ñuy def. waaw di ñaanal yàlla waa New York yi ñi ci loru ñëpp yàlla suñu borom defal leen tan ñu tane bu baax xam nga ñi ci loroogul yàlla def ñu bañ ko am parce que barina fi waaw mais réglement rek xam nga heure tëdd jot ñu tëdd heure li ñu wax ñu rek respecté règlement yi xam nga loolu mooy avantage tubaab yar bi respect bi surtout ça quoi ci loolu la ñuy gën a focus moo tax dañuy am dañuy am xel mu dal ni lépp lépp jóge fi quoi incha allah di ko ñaanal waa àdduna bi yëpp rawatina Sénégal bi nga ba dégg nañ deuxième question bi waaw mais loolu du dara loolu loolu bokkul ci respect quoi mais tamit xam nga su ma mbokk policiers yi ñu wàññi dëër yi rek gis naa temps yi ñu jël beneen système bu bees mooy marche canari course lapin njaabu golo yooyu yu baax la xam nga ku musul entraîné nga sulloo ko tànkee li nga bëgg ci moom dina faj wàññi dóoree di leen xamal ni gars yi li ñuy def yëpp seen intérêt moo tax policiers yi bu ñu sañoon ñoom ñëpp dañu toog seen kër xam nga dëkk bi nekk en règle quoi ci côté boobu ñu ngi wax ñëpp rek xam nga di leen wax ñu dal jaamu toog ñu xeexandoo ko quoi kenn ku ne am nga ci part de responsable kenn ku ne sénégalais ne comme ni ko président la defee kenn ku ne am nga ci part de responsable ñu ñaan nag xam nga sénégalais yëpp ñu ànd en masse ñu xeexandoo ko yàlla jëlee ko fi quoi ok. dégg nañ troisième question bu baax waaw mais comme dab rek xam nga man li may wax mooy nit du nekk ci liggéey. tëb tëb rek nga ne ko dàq naa la man loolu du ma gënal xam nga même ba mbëri ne Alioune na fi jóge na fi jóge man dama bokkoon ci seul mbër boo xamante ne ni maa ne loolu du yoon kenn du nekk ci liggéey ba ci yàgg nga ne ko na fi jóge na fi jóge comme position moo waxoon foofu rek laay wax mën nañ xool nu waxtaanee moo gën mais boo xoolee commentaire da nga xam ne Matar Ba ñu ngi koy nuyu moom mi nga xamante ne ñëwee ci làmb ba tey daa yokk te ku yokkul da nga wàññi comme moom yàlla def na ne ñëpp bëgg ko na leen woo woo njabootam ñu waxtaan parce que Sitor tey mérité wul tëb tëb rek daax ko ci làmb ñu wu ko Babacar fii xam nga ñi ngi leen ñu am trouvé ñu trouvé solution toog waxtaan après ku nekk dellu sa liggéey ko loolu moom man ànduma ci quoi man moom personnellement nit kuy liggéey ñu tëb tëb daax la moom bon du ma neex quoi parce que kenn ku ne da xool sa bopp quoi eh, di leen ñaanal ñu trouvé solution ñu waxtaanaat daal luy yëpp passé incha allah man loolooy sama rek ñu ngi lay bëggee gaan dégg nañ question bu baax waa li ñuy wax rek xam nga di wax en masse xam nga ñu ngi lancé appel xam nga mafia mënër bi nga xam ne fa lañ bokk mafia mënër bi te xam ne fa lañ bokk ñu ngi leen di bëggee gaa yëpp di leen nuyu mais en même temps nag di wax gaa yëpp en masse ñu respecté liñ teg respecté règlement yi huit heures gaa yi teel a tëdd ñu fagaru daal di lancer appel di nuyu Gris président mbër di leen wax tamit mbër war nañ ci def at Gris Bordeaux ubbi benn Orange Money mbër yi ku am sa fukki dërëm dugal ci am sa lii dugal ñu ne somme bii tey mbër yi ñoo ko def somme bi li muy bari bari mbër yi ñoo ko def ci feebar bi loolu man daf may neex parce que am na ñoo xam ne ci xeex làmb lañ dëkk kon nag tey bu ñu jógee ñëpp di def mbër defuñu man loolu du ma neex na ubbi benn Orange Money bu baax ku am looy dugal nga dugal ci ñu téye somme bu dëgër bu takku yaa ngi dégg ñu joxe ko teg ko ci table wan ñun ci dëkk bi lañ bokk ay citoyen lañ ci dëkk bi loolu moom maa ngi koy lancé di ko lancé ngir bu baax